Sénégal seen candidat nekkoon Oumar Sarr pas Abdoulaye Wade Oumar Sarr tey ñoom ñu ne que dañuy génn ci coalition bi parce que du ñoom la ñu tab pour ñu nekk tête de liste ñu dem def seen coalition mais ana Oumar Sarr ñu indi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade suma maam la suma baat ci kaw. wante nag tey waa parti démocratique sénégalais yërëmuñu Abdoulaye Wade. parce que Ablaye Wade n'est pas candidat laajul dara namul dara à l'heure où le président de la France a 38 ans ou 39 ans on va prendre le doyen de la classe politique sénégalaise parce que on refuse mm -hmm. de comprendre les les enjeux de l'heure les enjeux de l'heure mooy dem assemblée nationale imposer Macky Sall benn majorité pas pour saboter mhm. parce que boobaa Macky Sall su jógee ne man lu ma bëgg mooy jël 600 milliards mhm. euh, def ci benn saxaar bunul sax génn région de Dakar 600 milliards yooyu Macky Sall kan la ko wax waxtaanee wu ko ak kenn man maa ngi député assemblée nationale musuñu ko indi assemblée nationale pour ñu waxtaanee ko yow nga jël lu toll ci 600 milliards 600 milliards moo nekkoon le budget du Sénégal quand le président Abdou Diouf partait en président Macky Sall bu muy campagne musul wax waxu 600 milliards bu muy dugal ci benn saxaar. bu mu bu ko falee bu muy def conseil des ministres décentralisé. il n'a jamais parlé de 600 milliards bu muy dugal ci benn train express régional. lu mu waxoon ci campagne bi mooy su ma falo dinaa wàññi suma mandat dinaa la jox askan wi cinq cent mille xëy dinaa créer benn gouvernement de 20 ministres dinaa dinaa dinaa lu mu diggoon ci conseil des ministres décentralisé. su ñu tënkee lépp. ça fait plus de 4000 milliards gisuñu ci suñu bopp mu jóg jël benn xeetu si saxaar dugal ci 600 milliards waxtaanewu ko ak kenn pendant ce temps dëkk bi amul radiothérapie lu ñu bëggat ñun lu ñu namm mooy ëllëg suñu yàlla mayee ndam ñu toog assemblée national c'est pas que Macky su waxee gauche ñu ne droite non wante Macky su waxee gauche dañuy gëstu xool est-ce que askan bi gis nañ seen bopp ci gauche bi est-ce que vous tey que un train express régional qui est bien sûr surfacturé à 600 milliards, est-ce que c'est une priorité dans un pays où les femmes accouchent sur des charrettes, où il des problèmes de pistes de production, où l'éducation tey na ma yàlla baal amul kenn ku nga xam ne ni tu as les moyens di jël sa doom di ko denc fii Sénégal muy dem muy dem muy dem au-delà du bac di jàng fi Sénégal parce que l'éducation aujourd'hui malheureusement moy loolu santé bi kenn kenn xalaatoo sax feebar yenn feebar yi di faju Sénégal voilà euh, mbay bi man maa ngi yëngatu ci agriculture bi wante xam ak maa ngi ci lépp. monsieur le maire dafa mel ni yéen da ngeen di fàttali jiite woon ngeen réew mi yéen socialiste yi. waaw mais euh, socialiste c'est-à-dire bu Sénégal doxul am ngeen ci wàllu wu rëy. 40 ans wante man maa ngi ñëw parti socialiste 2004. mais mais socialiste nga. j'assume le bilan du parti socialiste mais il faut qu'on se comprenne. je vous ai dit que quand je suis né. il y a 42 ans de cela mon père était avec le président Senghor. am na lu ñu war a man bilan bilan Senghor en quoi est-ce que man mën naa ci. apparemment euh, nee nañ da ngay nationalité américaine. <laughs> loolu këyit rek la. mais kon yow coowal double nationalité bi. yow su ma la yow su ma la joxoon suma passeport américain nga jël. non monsieur le maire monsieur le maire bëggoon dama bëggoon dama problème dama bëggoon may monsieur le maire dama léegi ñun euh, deuxième partie bi li ci des dama bëgg ñu taaj ko teesante. on a préparé tellement de euh, dafa am yu bëri yoo xamante ni Sénégalais dañu la koy waxal mais ñun dañu la ko bëgg a yeggee ci plateau mais en attendant euh, dama bëggoon profité ci rek jàll jàllale partenaires yu quartier général parce que bëri ay euh, euh, sponsors yoo xamante ni ñoom ñoo jàpp euh, ci suñu combat comme monsieur le maire Sénégal ko bëgg te ñu ngi ko doon xaar on a tellement de questions yoo xamante bëgg nañu ko ko laaj li ko tàmbalee Sedima Orange jaaree ko CCBM ba ci punch mi nga xamante ni moom la ñëpp taamu bu ñu ba noppi moom la ñu naan comme boisson ba ci meewu alib mi nga xamante ni bëgg ngeen itam di ko ndogoo ba sax li nga xam ni i mbir yoo xamante ni suñu ay partenaires dañ ñu ko jagleel j'aimerais euh, ngeen xool yooyu yëpp euh, ci euh, publicité bi bu ko defee juste après ñu àggali quartier général bi